pension bi lu tax ma tuddee ko pension bi euh, c'est parce que dama mës a am euh, cofeel dama mës a euh, bëgg mais femmes yi nga xamante dañuy nekk ci ci gare yi di nekk di yor ay pension mooy les petites gargotes di fa liggéey di fa daan seen doole ñu dem ba liggéeyu traiteur ñëw ñu bëgg leen ñu bëgg leen fàtte man loolu laa kii ma ne xaaral ma delloo leen jukkal tuddee sama enseigne pension bi ba pare ma am chance sant yàlla ay mag yar ma jàngal ma yenn togg yi nga xamante ni moom moo doon suñu euh, suñu moo suñu moom lañ gënoon bëgg e voilà le principe de pension bi pension bi mooy loo xamante ni tey boo ko boo ko lekkee bëgg nañ lépp lu nit lekk ci ñun mu fàttali loo xamante ni un bon souvenir la bonne cuisine comme on di la cuisine du cœur et sans prétention sans aucune prétention. Mm-hmm. bienveillance mooy euh, tey dañoo doon waxtaan ñi entre jigéen. pratiquement ñun ñëpp loo xamante ni dañ ne bienveillance pour man mooy bàyyante xel bàyyante xel ci kaw euh, ci ni ñuy dundee ci ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy euh, jugé ka ca des ni ñuy sàmmonte suñu biir euh, ñu gën a mën a bàyyante xel su ko defee ku ci nekk du gaañ moroomam et muy nekk concept boo xam ne du concept sax ndax moom la ñu xam moom la ñu màggee mais dañ koo bàyyi ñu war delluwaat ci lañu la ñu nekkoon mooy di bàyyante xel di gën a jàppalante en tant que jigéen su ko defee ñun ñëpp ñu mën a gi àndandoo mën a nekk ci jàmm